wax naa ko fii laa koy déclaré nee naa leen màggal gii di ñëw ñetti junni nag lañu sasoo ñetti junni nag lañu sasoo màggal gii dëkk waaw ndax dañoo xam ne yéen def million dañu di woon dara ren ñu ñëw def 300 millions nekk na ba tey loolu dara waaye yéen dafay dara seen mbir maa ngi tuddee ko waaye dimbali na ba mu déwén nii milliard bi daanu ñun xam nañ ne mën ngeen ko am ne bu yéen a ko demee Serigne Saliou mooy defal na la pour fayakul. nga ne sëñ Bati képp ko gis aajo na ko faj naa la bu mu fayee ko tun suñu aajo bii la koy gis te dinañ ko fenn suñu fi yéen dimbali leen ko ba bu déwénee ñu indil leen milliard dañoo bëgg milliard gaaw gaaw gaaw tàbbi ndax ñun leer nañu ne ay milliardaire lañu doon kon ñun leer nañu ne ay milliardaire Serigne Bethio doon ñun loolu leer na yow loo wax yàlla def ko Serigne Saliou moo nga yow yàlla def ko sëñ Béthio yéene ñu ko barki sëriñ Sall dafa la ñu ngor ak xolub jox la ko te yéene la ko lool te bu soxlawul ci dara ñu barki sëriñ Béthio ñoo ngi lay sant bu déwénee ñetti junni nag la ñu wax te ñetti junni nag mooy 900 millions bu ñu tegee 100 millions mooy 1 milliard defal ñu ko sëñ Béthio jox la ko.